وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تناور بهم ذات اليمين وإذا غربت تخرجهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى بالحسنى فسنيسره لل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق نصره الدين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 القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة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 صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله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 وبنينا فوحكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المسرات ماء سجاجا tabarakallahu ñu ngi fii ci daara soxna na fi jon bu Serigne Babacar Sy ngeen ñi gis ngeen ñaari xale yi macha allah ataallahu amruhu wa ayyadahu nasara yal na yàlla fay leen waaye moom it jisika xayran wa kufika charran wa laqina fi ma baqita duran la fudda fuuka wala burra man fuuka wala shalta yadaka wala rufia nashuka summun bukmun umyun fahum la la la la la xattun xattun xattun fa sakfihumullahu wa samiu alim mu mel ni ñu fi jot a toore suñu xol tooy na suñu xol sedd na rawatina bokk internet bi di ko seetaan buñ ko seetaanee seen xol dina set mais nag publicité wuñu kii mais liggéey bu ñu war wane rek te kenn ne am nga sa doom bëgg tey boo seyoon sa doom dina ci dënnu xale yi nekk sa dënnu doom kon bu ñu génnee lii bëgg jëriñ àdduna tax ñu àndal nag Serigne Babacar Sall mu maam roqeetu si mu Serigne Babacar si mu Cheikh Seydil Hadj Malick si ñëwoon ziar si daara ji ñaanal daara ji yal na yàlla yokk ko yal na yàlla taxawu ko waaye di ko ñaanal yal yàlla gën a guddal fanam di kilifa gu mat kilifa la nag di kilifa gu ñuy ndamoo di kilifa dañuy wax ne nit ki di suñu di suñu papa ji doon wax ne mu ne nit bu ko nekk baaxal baaxal baaxal dana baaxal ci kanam rek mu lay xool bu yàggee nga baax te bari na yoo xam ne tey man bu ma ko nangoo léegi grâce a moom tax man moom yaakaar naa ne nit moom yaa ngi na la yaa ngi dégg ñaanal ko ndax dañuy wax ne nit ki am na ngay mel rek. yaa ngi yar xeex moo ko a jàpp. a loon jàpp. yar yar rek da def ci yow. ndax am noo xam nit bu kay mën ci yow rek di nga rus def yenn yi. wala nga rus koo wax. ku yàlla baaxal la. nit ki di nga bokk ci famille. te doo te te doo te doo te doo mel ni nga war a mel. ndax boo xoolee abaa lëhëb. Ah, wala ba jëlin ñooy bokk ak Seydina Muhammad waaye kii bu mu nekkee dërëm Sëriñ Haj Maalik nekk dërëm Sëriñ Babacar dafa dox doxin boobu ci oyof gi ci xam-xam bi ci wilaaya gi ci maandu gi ci nopp bi ci koo xool xam ni kii si Sëriñ Babacar soo xoolee rek xam ni kii Sëriñ Babacar Si Sëriñ Babacar Si moom moo teew kon fa tabaarakallaahu ñu jox ko mu ñaanal daara ji woo woo woo woo quelque njaboot ci daara ji ñu ñëw jógee ñu fii daara soxna Nafi gi waaye tamit woo tamit àddina bi yëpp woo àddina bi yëpp ci liggéeyu maam bi nga xam ne fa la taxawal muy fekk fee sa Pikine hmm. ñëpp ñëpp xam nañ ko yaakaar naa yaakaar naa télé bu ne ñëw def RFM ak EFM hmm. seen TV Walf Fadjri ñëpp fa ñëw kon liggéey bi mu ngi mi ngi mi ngi dem te baarakallah xanaa ñaanal ko yàlla yàlla gën a guddal fanam di suñu sëriñ nag di suñu sëriñ di suñu lépp kon sëriñ bi di bàyyi la rek nga nga nga nga nga nga jàjjiwaat say njaboot di jéggul na ci toog bi ñu toog ci kaw ndax liggéey bi moo ñu ko permettre te ak yow waaye du yar ñoo ngi ciy jéegul nag bu baax a baax naa jot dëgg wala salaamaaleykum sëriñ bi mu ne salaamaaleykum wa rahmatullah mu ne aouzu billahi min asheytaan rajim mu ne mi ngi am mbégte bu rëy a rëy nee na teew fii ci daara ji di kër soxna na fi jonn mu sëriñ Babacar Sy nee na li mu doon dégg yëpp. nee tey gis fii. nee na moo la sant yàlla rek. nee na soxna na fi nag war fa wax lépp lépp lépp lépp lépp. ay kàddu sax. nee na c'est la répétition da ngay répété waat rek. nee na daal dañuy ñaan daal. yu mel ni ñu bare woon ñu bare Sénégal lool. dëkk bi naat. kon léegi Sénégal naat. kon problème mu Sénégal yëpp réglé. léegi problème mu Sénégal yëpp jeex. waaw malheureusement. nee na waaye mais malheureusement. dañoo jóg pour xeex yi. dañoo xeex daara xeex nitu daara yi. yi. am sax ay nitu yoo xam ne bokk ci xeex ñoo xam ne dañuy woote ay nitu daara waaye bokk ci xeex boobu. waaw dañuy nekk doomu daara. dañuy nekk doomu daara. bokk ci xeex daara. bokk ci di xeex daara. loolu te nee loolu lu yéeme la. waaw am na ay lobby. nee na am na ay ak yeneen xeet yoo xam ni. jóg rek pour xeex l'islam. dañoo jóg pour xeex l'islam. waaw te fi ñu koy mooy ci daara yi. mooy ci daara yi. bu ñu demee ba ñu daara moderne. moderne. waaw xale kenn ñenn ko laal. xale kenn waru ko laal. boo ko téye gendarmerie ñëw wala police. boo ko laalee xale yi. nee na loolu pour protéger xale yi de. mais pour décourager euh, euh, sëriñ la jàngalekat yi. jàngalekat yi. yi. pour néewal daara. pour néewal daara. waaye xam ni. waaye da xam ni. daara yàlla mooy teg yàlla mooy gis teg loxoom. bépp nit yàlla. bépp yàlla. yàlla moo la teg loxo. yàlla moo la teg loxo. képp ku ko toroxal. képp ku ko toroxal. yàlla dina la toroxal. waaye du ci yem dugal biir safara. waaw kon nag ah dañuy ñaan. kon nag dañuy ñaan. te du ñu mës a am ndam mukk. te dañu ñoom du ñu mës a am ndam mukk. ci biir ci kaw lislaam. ci kaw lislaam. ndax lislaam yàlla ko teel boppam. ndax lislaam moo ko teel boppam. waaw lii. nee na lii preuve ku xool xale bu ndaw bi jàng alxuraan bi. jàng nee na bi xale bi jàngalee nee na xol bi tooy na lool. Ah, encouragement nee na lii encouragement la soxna na fi. Ah, nee yi ñaanal soxna na fi. te te aussi lii lu yéeme euh, na nee na waxu ko pour jeter ay fleurs de wala bëggul la neex de. nee na am na trop trop trop trop ko bett. nee na moom waxoon naa ko rek waaye ne lu woon li nga ne lu mu gëmoon à cent pour la. waaw ndax son cat jiital loolu. yàlla bu la cat dugg dafay jiital loolu. ndax soxna su mel nii. ndax nee nekk ci te mënoon def lu bare. nee na itteem yëpp nekk ci jàngale te mu mënoon def lu bare. macha allah nee na macha allah. yàlla bu la cat dugg. yàlla defal cat. yàlla yàlla la cat. may la gudd fan. may la wér. may ah, daara yi ba nga xam ne Sénégal yëpp. nee daara a siiw rek ba Sénégal yëpp ñëw ñëw ñëw si. ji siiw na sax waaye mu gën a siiw ba àdduna bi yëpp di indi seen doom ñu siy jàng ci. incha allah loolu yàlla dina ko ko def. wóolu ki mu gëm na ci barke Seydi ko def. Seydi moo wax. nee na Serigne Babacar Si moo wax. lépp loo bëgg du siiw. na lépp loo bëgg du na bu ma ko tuddee. waaw comme nag moom daara ji Serigne Babacar la fu mu na daara ji moom mii moo moom Serigne Babacar Si te du ko dindi foo xalaat daara ji dafa àgg. alhamdulilah. nee na moom loolu ko wér la. incha allah rabbi jot bi mayewu ko jot bi mayewu ko dañuy ñëw rek pour ziar si daara ji ñaanal ñaanal njaboot gi ña ñëw tamit moom tamit incha allah rek bi njabootam dana fi ñëw ndax tamit fu muy yóbbu njabootam war na koo xool looloo waraloon mu kii <laughs> ma ne loolu nga wax waaw nee na ñu ñëw rek pour ziare soxna na fi. waaye taalibe Tijaan. waaye taalibe Tijaan. rawatina taalibe Cheikh. waaye rawatina taalibe Cheikh. waaw di njabootu Seydi Hadji Malick. di njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick. di njabootu Seydi Aboubacar. di njabootu Seydi Aboubacar Si. am kenn amul lay xalaat foofu. nee na kenn amul lay xalaat foofu. <laughs> kii bi rek ak kii bi rek. wane na ko. Ah. Ah, waaw ñoom dañ leen yar si xel. Ah, ah ba pare nag mu mu yoroon ndar. ba pare nag nee mu yoroon ndar. am na kooku civilisation. mu ne kon boobu civilisation. loolu kenn amul leneen bu ñu xalaat feneen. bu bu kenn amul xalaat feneen. waaw waaw sëriñ bi de moo moo def kii bi. moo ko bind nag. kii bu kii bi xam naa dana koy bégalee réew sëriñ bi yi lay yi lay jàngal xale yi nag. waaw képp koo xam ne am na foo tënku nga dëggal fa sa bopp. te gëm ko. mu ne bu ñu weddi alxaaji Malick ak Serigne Touba. ndax yàllaay borom bi may. boo tëlee tëb nel maa tëlee tëb mais bu di ñëpp dañoo tëlee tëb. wallaahi. xam ñoo xam ñoo ay milliards mu ñoo ndox mu jàll. yow yoroo milliards ndox mu jàll. kon nag nee na bul weddi alxaaji Malick ak Serigne Touba. kazaaka bu kunt bu kuntaak limaam bu leen wedd. wallaahi. bekkaay kunt bi kon ne la ñoom nitu yàlla yi kenn ko yor la yàlla may. Cheikh Bekkaay bi tuddul Cheikh Bekkaay. Sidi Moxtaar la tudd yu métti eh, ah, Ndak ak Cheikh Omar niki noonu Abdoulaye Niass Ahmadou Ndiagène zine yi ñëpp kenn ku ne waxal ma dégg saa <laughs> damaa ma Alex bi a wax xam nga yaa yaa ngi dégg wala ne Alex bi yaa ngi sa tabaarakallaahu sëriñ bi nga dégg ni li mu taal ni di ko jàngal xale yi kon kenn ku ne sa pas-pas mi ngi koy bàyyi ak yow kon daara ji ku fi indi tamit sa doom ak fu mu mën a bokk kenn du jël pas-pasam pas-pasam dañ ko koy bàyyil te pas-pas mooy lépp kon fa tabaarakallaahu yàlla yàlla gën a sàmm yàlla yàlla gën a wot yéen yàlla gën a dëgëral. fii ñi fi toog ñëpp ginnaaw ba sëñ bi yow yaa fi jot. xayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu loolu bi du suñu wax kon yal yàlla barkeel la yal yàlla sàmm la da ngay ci xale yi yal feeñ ci yow te dina feeñ allah rabbi sëriñ bi dina la ñaanal bu baax a baax dina la boole ci boppam te si ay xursi dina la si incha allah rabbi incha allah rabbi ko moom ñaanal yàlla guddal fanam yàlla sàmm ko ba liggéeyu maam bi mu nekk yàlla mottali ko. amiin kon allah macha allah fa tabaarakallah. naa lool bëgg naa lool macha allah yàlla fi yàlla. ah daara ji de su ma waxee ne am naa benn problème ma di ko jooytu ngir nit ñëw def fi dara yëg naa ne yëg naa ne am na lu manqué fii. ndax amul kenn kuy jàngale yor daara te amoo problème amul rawatina fi nga nekk bu dee da nga ko luwe bu xale yi fayee nga dajale fay yëpp fay ko location te location dund gën ko cher ah kon sa jàmbat yemale ko yemaleel sa jàmbat ñun dañuy yemale suñu njàmbat ndegam yàllaa ngi def sutura alhamdulilahi rabbil alamin waaye daal li wér lu ñu mën di liggéey fekk fu dara newul ñu def fa dara loolu mooy sunu kii bu fexe jub façon xale bu ne nekk daf fiy ñëw yàlla ko sutur léeg nit ñëw fi seen af daara waaye ñun daara nga xam ne dañ daan toog samedi ba samedi lan daan sangu lan daan nangam ah kay dañu def xale yi ñëpp biir nekk ci prison ndax dama gis ay faay yoo xamante ni mi ngi ci am yi dundalul daal doo xool éducation xale bi doo ko wallahi la azim daara ji ñi fi ñi fi dul fay ñoo ëpp ñuy fay wal quraani la waaye ñooñu ñoo bëgg seen doom jàng ña yor njëgu fay français lañ ko yéene ak tubaab bi kon ñun man yéeg ñi ñàkk ñun tamit ginnaaw ay faqir amuñu ci réew mi ndey amuñu fi bàyyi amuñu ku ñu euh, kone euh, nuñ koy waxati reconnaître kon tabaarakallaahu ñu ngi seen émission jotaay mag ñi na fi jot eh, a ngi a ngi dégg waxtaan bi macha allah nee na lool am na waxtaan yi fiy jaar ngeen koy laajaat xam naa ne bii ngeen ko laajaat yoon na boo ko laajaatee moom damay ragal mu ñëw Dakar wala ma fekk fële. kër daara bi nekk Dakar Medina waaw kër cosaan bi. Hmm. mu defee ko fu ak ñun say xol yi sedd na te xam naa ne say xol yi sedd na. tabaarakallaahu di ñaan yàlla rek lépp luñ fi wax rek yéen yàlla daf ko leer sotti suñu kaw. amiin ñu ànd ak kilifa gi nag mu mu seet si côté ziar si doon ñëw xool daara ji léegi ñu war a dugg dugg ci émission daara ji léegi xam naa bu ñu bu ñu noppee rek euh, tabaarakallaahu ñu dugg ci beneen émission bi waaye laaj ko ciy dugg rek ñu laaj ko ban yéeg-yéeg rek nga am gisee ah Serigne Babacar Sall ah moom wax dëgg yàlla teewam ci kër gi moom dama ko rafetlu loo ndax mu mën na Serigne Babacar si moo teew ndax xale bi dana ma tey si suba bàjjen man ko la fay loo mën ne damaa gént man ko loo gént damaa gént Serigne Babacar si génn ci diggu saal bi taxaw ci diggu saal bi. waaw ma ne ko ah da gént garaaw na de. matul ay minutes nga woo ma ni ma sëriñ bi tamit day yegg si waale pour xool daara ji ma ne ah kon de Babacar Seye ngi ñëw. <laughs> doogu ma la toog yàlla bu la yàlla toog. Uh-huh. mais bari na jotaay ñuy dem. ñu uh-huh. dafay génn loolu ñu accès bu nekk ah waaw parce que xale moom day gis waaye fa tabaarakallaahu ñu ngi bégee teewam ci kër gi di sàkku ci moom ñaan sàkku ci moom ñaan ci daara ji mu jëmale ko kanam. te Serigne Babacar Sy woon sampu sampu mbay si fii ci Tiwaawan <laughs> deesu fa sempi waaye man tamit sama samp fii ci Sébikotane bëgg naa langaamu ci maggu maggu sëtam bii ngir ñu bañ koo sempi <laughs> kon ah kon am naa garanti ah kon baax na léegi fa tabarakallahu ñun itam fépp fu ñu nekk Serigne Babacar Sy boobu dañu fay jëmmal ay jëfam jëmmal fa ay waxam xawlan wa fi'lan ndax Serigne Babacar léppam njariñ la waaw léppam njariñ la waxam njariñ la jëfam njariñ la dox doxam njariñ la léppam njariñ la kon dina baax léeg-léeg sax nit ni ma yow boo yoree daara da moytu di def nataaku sëñ Babacar ndax man kii bi kaple euh, bi ñuy defar fa seen Babacar bu mag lañ ci def mais ñu ne ma mën na tax ñeneen ñi bañ a ñëw waaw mën na tax ñeneen ñi bañ a ñëw ndax dañuy lay rek mane leen ku bëggul sëñ Babacar bu mu ñëw ku bëggul sëñ Babacar lu ma lay doyee lu may doyee sa ndongo murit bi day bëgg sëriñ Babacar ndax ñoo bokk benn deret xaadir bi day bëgg sëriñ Babacar ndax ndax Cheikh Tidiane Chérif ak Xasan euh, euh, ak Xuseyn kii moo meññi Cheikh Tidiane kii moo ñeeñu Abdou Qadir Jeylaani kon sëñ Babacar mooy mooy àdduna waaw sax nit ku ne bëgg nga nitu yàlla ku baax da dugg ci école bu ñu tuddee Cheikh Mouhamed Fadal ah sëñ Fallou Mbacké fekk fa ñëpp nekk fa di jàng ci école bi ñu ne école Fadilou Mbacké laay jàng école Cheikh Ahmed Bamba laay jàng ndax dañuy dugg naan murit bu ñu jàng fii wala ibaadu yi bu ñu jàng fi mais bu dee alquran ah nga ne nga ne nga ne nga ne bul def kiiwu sëñ Babacar ndax lan nangam sëñ Babacar nag daaw dafa garaawoon léegi nag yow lan nga ciy bañ man daal maa ngi sampal mbay fu ma ne dafay sampal Cheikh Al ku may boole man soxla na fi bëgg maag Serigne Babacar ku may bañ boole maag sëñ Babacar waaw ndeysaan dina ci wàccaay émission bi di nuyu nag DG baax a baax di ko ziar di ko ñaan yàlla yàlla doon di taxaw ko uh-huh. di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ànd ñun ci émission bi ñu uh-huh. daaneel ko te nuyu ñu fa tabarakallahu ziare uh-huh. Serigne Ndiaye Bousso nekk uh, ko tabarakallahu jaare moom Fatou Seye Mbacke mooy sama xarit Aliou Fall xarit di sama xarit di sama xarit. Fat Sëñ Moustapha Al Amin Aliou Fall Ousmane Si Dabakh Fat waa Sopp Dabakh moom Fat fi fi si biir laaj moom Fat waa Xeyrul Xadim Aliou Fat Oustaz Ba ak Jaraaf ñaari soxna yooyu ñu bàyyi soxna nag rek mu def gàncax tàggoo nuyoo tàggoo ñu tàggoo tàggatoo ñu tàggatoo incha allah rabbi fi yàlla bàyyi laa fi allah ñu ngi tàggatoo tàggatoo bu dul tàggoo di ñaanal yàlla site bi yàlla na ko yàlla yokku yokk ko ba mu yegg fi ngeen bëgg mu yegg fa wala mu kawe seen njortu si barke Cheikh Sidi Ahmada Tidiane yow itam imam Jara maa ngi rafetlu bu baax sa teew ci kër gi. ndax li may wax sama jàngalekat yi rek ba ne leen euh, man sama daara ma ne leen dafa xaw a yéeme ndax ñi fi nekk ñëpp seeni baay ay borom xam-xam ay doomi soxna rek ñoo nekk ci daara ji nga xam ne seeni baay tafsir lañu ay tafsir lañu macha allah ah yóbbu ko ci kaw dégg ko ci tata dégg ay borom xam-xam lañu man leen kon bokkul ak ñi nga xam ne dañu yor daara di jàngal ñoo xamante ne seen i bàyyi feruñu ijji xam bu boobaa loo jàng rek dañ naan dañ naan ah ay xale bi macha allah macha allah waaye bu dee ku mel ni ki Babacar Diarra sama jooju nga xam taal bi sëñ Mansour boobu nga xamante ni macha allah ak ñu mel noonu waa Kër Khada Alioune Diagne ñun ñëpp ñu ngi fii. waaw kër diine yëpp wax dëgg yàlla waaw waa kër limaamul muntazar waa kër sëñ Modou Xaban macha allah ah daanaka kër gi koo wax mu ne Mbàkke ma ne cey man man man mënumaa teqali ko xaadimal Mustafa eh? jàpp ndey la Mbàkke ami mu ne Mbàkke bi mu ne Mbàkke waaw léegi nag xale yi nag ñiy jàng sax am naa benn taalibe boo xam ne ndeysaan murit la mu nga jógee Bambey séeréer mu ñëwee mu gis photo Seydi Hadj Maye mu ne bàjjan kii ñii xanaa ay tiijaan lañu ma ne ko waaw ah ko ah parce que di koy murit gii mënoo koo bàyyi ah? léegi bu nee ay tiijaan la mu nga mën murit laa ma ne ko xaqiqatan sa mbàkkee gi na rëy <laughs> na rëy na biir ba tamit murit laa bu ko defee mu reetaan ah. su ko defee mentalité yooyu dañ koy jàngal xale yi da gis kii di wuyoo Mbàkke kii di wuyoo Laay kii di wuyoo macha allah la bayka ñoom ñëpp ñu àndandoo après dañuy riche xale yooyu bu ñu génnee euh, sama janq bi keroog dama ko mere ma wax ko mu ne naam man ko yow duñ fiy ñëw woo fi naam mbàkkee ga sa bàyyi doon wuyoo laa bëgg bu biir bu mu fi jógee ci waaw yooyu noonu ah koo xamante ni yar na njabootam ca la mu ko yar li yonent bi waxoon ba ko waaj a ñëwee ni ko aw ma wërsëg mu ne ko demal def la sa bàyyi daan def ah man sama bàyyi daan sàcc. fekk baayam sàcc ba mu daan sàcce yàlla ubbiwu ko ca woon doomam la doon xaar ba mu ubbil ko ca waaye ba mu demee sàcce macha allah ah, mu daa yàlla fay ko la la baayam sonn noonu te amu ca barke kon ku bëgg barke rek langaamul ci sa mbaggu baay la mu gëmoon nga gëm ko ah, boo ca mënee yeesal lu ko gën a baax gën koo yiw muy li jàng ndax ku jàng xam an seen ay maay loolu la rawee ñu bëree bëri maanaam jàngal boo jàngee bi nga xam te boo xamee kenn mënatu la codéliser kenn mënatu la jël di la di la fawe kenn mënatu laa wax dafa lii parce que li nga jàng yàlla nee na yonent bi nee na moom moo la war a conditionné kon dimbali leen ñu lillahi wa rasul ngeen ñu yar seen doom yi ci diine yar leen ñu jàng alquran français bi mu ngi tardeel xale yi nekk ci français 18 ans dugg université génn sa yaay mënu koo jariñ muuru fukki dërëm ci biir kër gi nga dem jàngi alquran alquran hudan shifa rahma lu ko gën a riche yàlla dëxañ ko ci sa jëmm ji mu ànd ak barke nga jàng alquran ba pare mënuloo am liggéey nga toog nit ni la kay jàngal ma kaamil jox nga sa yaay dépense wu ñeenti fan jàng kaamil ba kase waxuma ma sama doom yi ñu xam dara nga am sa cours particulier nga nit ni la bindal ma fii man da sama bopp day metti mu ëf mu tane mu dal shifa rahma yooyu barkeb alquran la te mën naa yor sa yaay yor sa papa yor seen waa kër ba keroog ngay wuy ji yàlla kon barke bi ci alxuraan nekkul ci français te nit ñaa ngi tardé di tardeel seeni njaboot bu njëkk français amoon na njariñ ndax daan nañ la ci jàngal personnalité suñu livre yi livre da ngay gis koo xam ne euh, mun la woon tubaab bi bind ko ba bind ah ni muy baaxee xale bi jàngaloo naalité régler respecter ay waajuram ndax lañ koy jàngal ci école ba tey jii nag ñuy xeex diine ñëpp ñu ngi ci école yi ngay tabax école bu rafet te ñun julli ci nangu ñu jànge ci école yii de école faramason yi rek la ñuy jànge école ñoom Lénine ak kar Marx rek la ñuy jànge xale yi kenn xamatul nañu mel élève bu njëkk danaa wax naan moo gën a civilisé sax jàngkatu alxuraan te élève léegi moo gën a moo gën a jaxasoo dafa jaxasoo moom élève léegi waaw bu dee jigéen lu mu ndaw ndaw ma nga ca sàngara sax ay canette lañ koy def di ko jaay waaw mu nga ca tux ba bu dee góor noonu yendu àll ngay yàq sa alal sa doom jël diine teg ba pare bu ëllëgee nga bëgg nga bëgg nga bëgg sa doom jariñ la benn personnalité moo des ci àdduna mooy daara ku jullit yi xeexal yóbbal sa doom mu laxasaayu benn xaftaan atu yàlla mu toog du seetaan tele du ubbi téléphone toog nga canaliser boppam bi xamal ko moom mooy kan laabe ko mu fonk ay waajuram alxuraan ku ko jàng di nga bëgg sa waajur sa waajur buy wax doo ci teg baat ndax kersa danga koy jële ci alxuraan waaye tey man bare na ay dañ parents yi dañuy wax a wax ba man dama leen di yërëm ma ne kii fan la nekkoon ak doomam ba tey jii doomam fukki ak kase mu war koo jaaxal ba rangoñam di wat ndax lan da nga koy solal sang ko puudar ko ah kii fii ñuy ñuy ñëw di jàng si alxuraan sax da leen di gis seen yaay yi jaralul leen sax kii dañ lay jox benn muru rek jox la mu kol bu ak sërëm rek ñu la demal jàng mais boo ñu waree jàng école seen yaay yi dañuy yeewu sang la jox la goûter nangam alxuraan nga di ko soofantal bu ëllëgee nga bëgg jariñoo sa doom yàlla nee na ma jox sa ndaw bu màggee ma delloo la waaye boo ma ko xañee ci bi muy xale bu màggee ma xañ la ko. ndax tabaarakallaahu incha allah noonu ñu jël ci jëlaat bi. Mhm. yàlla baax yàlla defal ñu jàmm am na jàmm àllaaxira. asalaamaaleykum

والحمد لله والحمد لله الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله والحمد لله الله أكبر والله